defee fukki minute de moom ma kii lay doon day doy sëkk waaw ah, salaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ngi nuyu euh, suñu mbokki journaliste yi ñu jàkkaar lool te ngeen teew fi rek ndax acte patriotisme ak bëgg yëgal sénégalais yi li xew seen réew di nuyu sénégalais yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci réew mi ak ci bitim réew di nuyu tamit boroom kër gi nga xam ne mooy fi ñu defee tey euh, liggéey bi tamit kenn ci seen biir muy seesu Sénégal set di ci ndigalul Pape Ngagne Ndiaye xam ne ab citoyen sénégalais la boo xam ne euh, taxawaayam ñëpp ràññee nañ ñu ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di nuyu madame Ndiaye ak Mbow ak mboolem journaliste yi fi nekk yëpp. Euh, tey nag li tax ñu daje ku nekk gis na ne daje woon nañ yoon wee weesu doon déglu ak a ñaan ak a am yaakaar ci jugement bi jëmoon ci cour suprême euh, yàlla nag euh, dogal na li mu dogal neex nañu ndax dogalu yàlla la te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 pour mu nekk ki nga xam ne fiis parrainage biñ doon wut ci DGE ba mu waraloon yéeg bi ak wàcc bi bu buñ ko amoon ñu ko doon doyee defal nañu mooy parrainé rek lañ ci bëggoon léegi nag jox nañu fiisu Bassirou Diomaye Faye pour ñu parrainé ci fiis bi nag mooy cent once cent onze nag bu dee ci sóoraat cent onze ci alxuraan mooy tabat te pat nag defe naa ne yàlla wax na lu ne ci alxuraan waaye wax ju leere noonu jëm ci yonantu beeg ña ko doon fexeel amul ci tabati waaw bañ na ko ba bopp saaba boo ko tuddee rek ñëpp xam nañ jërul ngay jàng benn aaya ci biir ñëpp xam nañu lan mooy maanaam tabat moom kon nag cent onze mooy tabat te mooy kaaf kon nag loolu mooy xutb mooy faal ah, ah, waaw ah. waaw kon nag sëñ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 réunion politique mënoon naa dem waaw mënoon naa dem réunion politique ba wàññeeku tamit ñu ne jàpp nañ waaye dafa jóge ci jumaa julli ji aj juma wàññeekoo ca julli ga di ñibbi këram ca la kon ka ko dogaale filma ko ci yoonu jumaa ji la ko dajeeg moom filma ko filma ga néexu ko ñu di ko lijjanti ba coow yi am ca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 fii nga gis Sénégal boo bëggee def ab manifestation da mel ni ku jëm ci loterie maanaam casque loterie da nga naan damay bind ñeenti bërëb su ma dugalee fii dugal fee bu bañee fii bañ fee buñ nangoo fee nga xam ne day mel na yow casque loterie nga jëm da ngay carte mais lii du administration nan lañ mën a jëmee ci ay élection ñu naan noon dañuy def ñetti candidat buñ dugalee bii dugal bee bu dugalee fële kee dugal ko fële est-ce que ñun ab administration lañ yor wala casque loterie administration nag damay wax ne du loterie bii gañ bii perte du ko ay taxi yu leer la yoo xam ne ay nit ñoo ko yor di ko doxal ku nekk xam nga li nekk ci taxi yi mais nit ñi dañ ko wóolootu gis nga Ousmane Sonko suñ ko jàppul woon kenn attewu ko kenn tegu ko dara moom ñemewul a jël ab candidature am képp dem déposé ko il faut mu am jël kee laxas fee laxas fee parce que xam na ne ñi ko séqal doxaluñ yoon te bu ko defoon sénégalais yépp naan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 indi fi président Ousmane Sonko mu maandu mii mu baax mii mu doxal réew mi te loolu li ciy firnde mooy man mii di wax ak yéen bokkuma ci parti Pastef mësuma dem réunion politique bu Pastef mësuma dugg ci benn seesu Pastef ci àdduna te terewul parti bi dem naa ba bokk ci nit ñi ca gën a ràññeeku su doon ay nit lañ ñoo xam ne àddunaa leen yitteel wala ñu siis wala ñu soxot mm-hmm. képp ko bokkut ci seen parti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 mu ne waaw mu ne ma nag loolu mooy problème Sénégal loolu dama koy wax sama mbokki sëñ daara yii mu ne ma loolu mooy problème Sénégal ma ne ko ah, mu ne ma dama laa bu ma faloo ndax ñaar ne ko ah, mu ne ma waaw parce que benn bu njëkk bi mooy nit yi daara yi ñu former leen ci daara surtout que sax dafa am nu mu ko waxee ne yéen ñii nga xam ne colog wolof gi ngeen di sol nekk nit yi daara da ngeen a wóor ba noppi jub ba noppi naa ba noppi mën a wax ak nit ñi dinaa leen soxla lool lu may liggéey ngir ànd ak man di ma jàppale ci sama communication loolu benn la mu ne ma ñaareel bi ci des mooy xam nga lu tax suñ gouvernement yi mënuñoo gouverner sénégalais yi ma ne ko waaw mu ne ma yéen ñii yéenay réew mi yéen sëñ daara yi ak yéen ñii nii nii mu ne ko waaw mu ne ma yéenay réew mi su dee nag damay wut réew mi ba am ko dem fee wut samay jàngkati tubaab ñu sol suñuy costume nekk ca biir palais ba di liggéey yéen da ngeen di jàpp ne ñee ñooy liggéeykat yi ñun ñooy sénégalais yi ñoom ñu jàpp na ñee ñooy sénégalais yi ñun ñooy liggéeykat yi différence boobu nag mooy tax nit ñi duñ yëg seen bopp ci nguur gi mu ne damay bëgg ab baay caaya bu mel na yow di dugg ci biir palais bi bokk ci fi ñuy dogale dugg ci ensemble bi bokk ci fi ñuy dogale boo noppee dem ci sa jumaa jiite wala nga dem ci sa daara jàngale ji ñu xam ne sëñ daara bee moo bokk ca ministère yee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 ndax li fiy woote bari na li fi yëngu bari na waaye kenn gisuñu ci Youssou Ndour mosta woote Bercy ba nga séen fa bàyyi jaayee waaw investiture yaa ngi fii lu nekk ngi fi làmb yaa ngi fi gisoo ñu ci dëgg dong moo nu mën a yëngal lu dul dëgg nag lijjantiwul loola kon nag bu nu xëyee ñu mën ne bàyyi caaye yi nañ daje lu ëpp ñaar fukk ci lu kenn waaju mën a toog fii ak oustaz Tahiro ñoom ñi ñëpp ak seen xam-xam ak seeni xalaat ñi sant Mbàkke ñi sant Ñas ñëpp loolu day wan Ousmane Sonko ne ko doxalal Sénégal gépp a ngi sa gannaaw ndax sëriñ si moom ku ñu àndal sëriñ bu wéet amul ñëpp ñu ngi sa te loolu nag jamono bii mu ñu mel ne néewal nañ ko doole moo tax ñu bari lu ñuy gën di ko wax ne ko ñëpp tey kenn bàyyiwu la ñëpp ak ngi sa gannaaw te loo dogal ñu nekk ca mm. te insha allahu rabbi yi 2024 mm. palais bii Ousmane Sonko koy doogee mm. képp ku ko ko yéene daasal say bañ te soccu dana da nga ree ku ko ko yéene wut nag baye boo wut musuwaar boo fam pesee rangoñ wasalaamaaleykum wa rahmatulah barakallah njaay jërëjëf jërëjëf jërëjëfati jërëjëfati barakallah jërëjëf Serigne si kàddu yu am solo yooyu nga xamante ne vraiment ñun ñëpp déggandoo nañ ko kon xam naa waxtu wi daanaka ñu ngi si ndar kepp gi wala sax ñu ngi si ndaw yi kon foofu la ñu dugalee rek euh, suñu sëriñ oustaz Tahirou Fall mi nga xamante ne moom moo jiite liggéey bi mu sof si kàddoom si version olof bi nga xamante ne waxoon nañ leen sax ne dinañ leen ko jàngal kon oustaz Tahirou kàddu gaa sama mbir alhamdulillah alhamdulillah alladi bi nicmatihi tatimu salihat wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokki journaliste yi mbokki Sénégal ñi topp conférence de presse bi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bala maa yëkkati sama kàddu nag damay gërëm ñi ma jiitu di samay rakk ni ma koy waxee saa su ne man su ma teewee ci seen jataay du ma wax ndax li ñu war a wax xam nañ ko ci ñu ngi koy wax ni mu gën a rafet euh, sëñ Cheikh Niass jërëjëf kàddu yi rafet na Imam Dramé euh, Cheikh Bara Ndiaye Cheikh moom jàmbaar la ñëpp jàmbaar lañu waaye moom dama koy beral loxo ndax taxawaayam ak wane gi mu wane nii xam nga communication baax na waaye jëf communique ci jëf moo gën a fës dañuy wax saa su ne mbir mi mi ngi ci alxuraan njàng mi mu ngi ci alxuraan leer gi mi ngi ci alxuraan mbaax gi mi ngi ci alxuraan loolu wax la waaye bu ñu gisee koo xam ni ñi fi daan nekk ay ay chroniqueur am nay jamono ñu fi daan nekk ay chroniqueur daanaka ay moromi Senghor la ñuy doon dañ daan agrégé en français ñoom Babacar Justin Ndiaye ñooñu la woon kenn ñemewul taxaw da ngay da ngay da ngay def da ngay nekk chroniqueur di analyser di def analyse politique moom mu jógee ca daara ja xam nga lu mu fa bàyyi xaala fa maa bëggum ak lil lazina ahsanul husna wa ziyaada ak yusikumullahu fi awlaadikum li zakari mislu hazzil unsayayn looloo di njàngam bindub kaamil man ca góorgóorlu ca yaru ca yalwaan ñëw nag xelam alxuraan leeral xelam alxuraan leeral ko alxuraan joojo yóbbu ko ci tey muy chroniqueur numéro un kon ñun benn benn waa daara mën nañoo bàkk bàkku ci moom Cheikh Bara jërëjëf jërëjëf ci taxawaay bi euh, man sama kàddu loolu moo tax du gudd ndax ñoom ñi jiitu Serigne Cheikh Niass Serigne Dramé Serigne Niass ak kàddoom yu rafet yi ak ñi wax jiitu ñu ñëpp dañoo yóbbaale suñu kàddu li xew tey daana xew ci histoire hmm. waaye ay mag ay mag waxuma mag ci